auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ngi del suwaat ci sunu jataay yi nga xamante ni moom lañuy ñuy faral di amal te mu doon jataay yi fàttalante tey nag ñu ngi del suwaat rek ci waxtaan ci tomb bi nga xamante ni ci lañ nekkoon doon ci waxtaan te muy tomb xalaat te muy fikru nga xamante ni mooy xalaat rek ci li suñ borom subhaanahu wa taala bind ci àdduna bi maanaam li nekk ci diggante asamaan ak suuf ndax suñ borom dane wa maa xalax na samaawaati wal ard wa maa baati baatilan suñ borom nee na binduma dara ci diggante asamaan ak suuf ci ak neen bu ko defee nag loolu noonu li tax suñ borom bind ko mooy mu doon loo xamante ni dañ ci mën di xalaat loolu tamit li ñu mën a delluwaat ci sunu borom subhaanahu wa loo tax sax suñu borom di wax ne maanaam ñaata kaawteef ak yi kiimtaan ñoo ne ci diggante asamaan ak suuf waaye nit ñi moom dañ koy romb nii rek di jàll waaye duñ ci xalaat benn yoon maanaam wa ka ayyi min aayatin fi samaawaati wal ardi yamurruuna alayha wa hum anha mu'ridun bu ko defee nag xam naa balaa ñu dugg jataay bi jataay bi ñu jàlloon am naa xëy na am lu ma ci bëgg a leeral mooy li nga xamante ni moom lañ doon waxtaan ci lu jëm ci wàllu jinne ñooñu di ñoo xamante ni suñ borom daf ñoo bind comme ni mu bindee doomu aadama yi nii wa maa xalaxtul jinna wal insa illa liyabudun maanaam bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma jinne yooyu noonu nag am na ñoo xamante ni dañuy sàkk ci ñoom njëriñ ak lor sàkk googu ñuy sàkk ci ñoom njëriñ ak lor moo tax ñoom it ñuy gën di féetaliku di génn ak topp ni nga xamante ni iblis bi mooyee suñ boroom dafa génn ak topp dafa ànd ak ab kuréel ci jinne yi jinne yooyu nag suñ borom dafa leen a kàttanal nga xamante ni mën nañoo dugg ci nit maanaam di ko jëfloo ak di ko waxloo yaa naa loolu sax ku see léegi defoon na ci waxtaan di ñuy wax jafur nga xamante ni moom mooy euh, maanaam nit jinne mën naa dugg ci biiram di wax ci aw làmmiñam di jëfe ci aw làmmiñam di wax ay mbir yoo xamante ni daf koo defoon nga xamante ni ñi koy dégg dañuy foog ne moom ci jëmmi boppam moom mooy wax loolu fekk dee jinne ji moom moo ko dugg maanaam di jëfe noonu ci moom di waxee di wax noonu nga xam mas nañu wax ne sax ne maanaam nit mën naa dem ci kuy jaay beñe mu jox ko jënd beñe ci moom wala lu mën a doon rek ba pare seytaane dox ci diggante bi mooy jinne yi seytaane yi dox seen diggante def ca dara su ko defee mu lekk ko dara jot ko ñu wax ne maanaam ka ko jaayoon mbeñe ba wala ka ko jaayoon nangam ba di ko tuumaal fekk na ñoom tamit ñoom dañuy def yooyu. xam nga maanaam suñu borom dafa wax ne ñoom euh, jin seytaane ak ki jinneem akub kuréelam maanaam seytaane ak i kuréelam mën nañ leen a gis waaye yéen mënoo leen gis bu ko defee nag fii nag ci sunu réew mi. ñoom ñoo koy ñoo koy def ay différence di leeral di wax ne lii mooy jinne lii mooy rab nga xamante ni ñoom bu ñu waxee rab liñ ci jur mooy maam yi nga xamante nañ fay nekkoon yoroon xam bu ñuul daan ko jëfandikoo biñ demee ba nga xamante ni jugo jigéen nañ fi ñoom am pas ak gëm-gëmu boo xamante ni mooy ñoom ñoo dikkaat di leen feeñu ci yeneen jëm di leen def loo loolu nga xamante ni mooy waral léegi-léegi ñi dem ci taati garab yi ak taatu guy ki yu mel noonu dafa sàmp ay kuur ak ay gën nag dafa tuur ay deret ak ay pepp ak ay soow ak yu ne ak xàmb yeek yu mel noonu yooyu ñu jàpp ne ñoom mooy li anglais di wax incarnation nga xam te ne dañu dañoo dikkaat duggaat yeneen jëmm feeñaat yeneen jëmm di def ak a dindi fekk loolu tamit demewul noonu amwaatun xayru axyain wa maa yashuruuna ayyaana yu baaxasuun ñoom faatu nañ waaye dikkaatuñu ci àdduna di def ak a dindi bu dee jinne nag moom mooy jinne maanaam olof mooy tàqale rab ak jinne waaye bu maanaam rab bu mooy koo xamante ni daf la moom noonu ko seele kiy leerle rab bu mooy koo xamante ni daf laa moom ok nga xam kon léegi liñ ci bëggoo a foofu rek te xëy na maanaam niñ ko leerloon bi jàll xawoon naa des mooy jinne mën naa dugg nit di wax ci moom di jëf ci moom di def ci moom ndax suñu boroom fi nga xamante ni dafa binde xelum doomu aadama te foofa maanaam ci asir suñu borom binde ci xelum doomu aadama foofu nag fi lañ bindee tamit seytaane moo tax seytaane di mën di dugg ci biir xelum doomu aadama di fi def ak di fi dindi ni nga xamante noonu la suñu borom bindee àdduna bii nii bind fi doomu aadama mën fee def mën fee dindi seytaane tamit noonu la mën a duggee ci biir xelum doomu aadama di fa def ak di fa dindi waa kay nga xamanteni ñom katan go suñ borom defal na len ko kon mu ngi non waa kay nga xamanteni manam maanaam ñoom it faral di eh, ndax jinne comme ni doom adam rek la mel waa kay it kenn wurta sak ci ñom njariñ kenn wurta sak ñom ay manam njariñ wala ñu lay fegal lor ndax yoruñu njariñ ñu lor waa kay yoruñu njariñ ñu lor ndax ñoom ay mbindeef lañ rek maanaam comme ñun waaw njariñ ak lor moom boo koy sàkk dong koy sàkk ci suñu borom subhaanahu wa taala mboolem xeet njabar yi nga gis yëpp maanaam leeraloon nañ la ci commencé yonent yàlla ba ci yonent yàlla ba ca maanaam maanaam ginnaaw bi nga xam yonent yàlla ya sax ñëwoon na am nañ ko leeraloon jotaay bi ñëw da jàll rek jëruñu ci jaaraat a xam-xam ya leen suñu borom xamaloo ñu jotaay woon ak ñoom jamonoon doon yonent yàlla ya sax bi mu fi jugee yonent yàlla daaw di ñëw ak nam ñaanee woon suñu borom suñu borom fàttaloo leen xam-xam booba ginnaaw mu doon ay takk-takk yoo xam suñu borom xamaloo leen ginnaaw bi tamit noonu mu doon ay takk-takk yoo xam dañ koo xamoon waaye nag ginnaaw bi suñu moom daf leen ko fàttaloo bi leen ko fàttaloo nag ginnaaw bi ne yi ñu jàppoon yëpp wératut bu ko defee nag njabar yi foofu daanaka foofu la commencé rek di ñëw ba ci Babylone wa maa unsila alal malakayni bi Baabil Haaruuta wa Maaruut daa koy di ñëw di ñëw ba fii ñu fii ñu nekk nii mboolem njabarkat yi ngay gis nii rek daanaka lu ci bëri lu ñuy wax nii maanaam wérut ay téere yi ñuy sukkandikoo tamit daanaka wérut daa nga xamante ni mu ngi noonu ndax jinne maanaam moom ci jëmmi boppam suñ borom ni mu la bindee nii nga xamante ni ñoom dañoo war a jaamu yàlla war ko ni nga war a jaamu yàlla war koo sàbbaal ñoom it noonu lañ war a jaamu yàlla war koo sàbbaal ñu bokk nag ñoom fii ci adduna bi nekk noo fi nii. waaw li gën a yéeme te muy kawtee fi suñu borom subhaanahu mooy bokk gi ñu bokk ak ñoom adduna bi bokk ak ñoom suuf si ñuy dund waaye mënuñu leen tëg bët mënuñu leen a gis waaye ñoom mën nañu mën nañoo gis nii waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xaddis boo xamante nii day wax ne inna allaha subhanahu wa taala xalaqa arbaina alfa aalamin al insu wal jinnu aalamaani wal bawaaqi laa yaalamuha illallah maanaam nee na suñ borom dafa bind li toll ci ñeen fukki junni aalam te alam bi nga xamante ne ci la nit ñi di dund ak alam bi nga xamante ne ci la jinne di dund loolu ñaar rek la ci kon des na ay aalam yu bëri yoo xamante ni suñ borom sàkk na ko mu ne ci fii ñu nekk maanaam monde bi ñu nekk fi dund ay aalam yi aalama nekk ok yëpp maanaam ay ndundat nekk fa di dund maanaam nekk fa tamit di fa jaamu suñu borom subhaanahu wa taala jinne ak aalam bi mu nekk ak nit aalam bi mu nekk ñaar rek la ci waaye que daanaka loolu sa juróomu ciy guddal noonu ndax daanaka fi mu toll li amoon solo tañ ñu bëggoon koo leer rek mooy ñu xam ne daal jinne léeg-léeg mën naa dugg nit di wax ci làmmiñam di jëf ci làmmiñam loola nag maam nit ñu ko gis mën nañoo jàpp nit ki la fekk déedéet du nit ki waaw ndax saytaan dafa am ay doomam yoo xamante ni moom mooy doom mooy tur yooyu nga gis njabarkat yi di ko woo léegi léegi muy Samharus Maymun Juuj Abiyat maanaam Burqaan. Euh, maanaam ahmar euh, yooyu noonu tur yooyu noonu nga gis ñu koy woo daanaka ñooñ ci tur yi doomi seytaane yi lañ bokk nga xamante ni ñooñu it kenn wut leen woo di sàkk ñoom njëriñ kenn wut leen woo di sàkk ñoom di di feglu ñoom ay lor njëriñ ak lor ci yàlla rek la bàyyi ko booy sàkk maanaam njëriñ ci suñu borom nga koy sàkk booy sàkku tamit maanaam loo xamante ni da koo ragal ngir suñ ngir ñu musal ngir maanaam muslu ci loolu ca suñu borom subhaanahu wa taala ci nga koy sàkk waay doo ko sàkk ci jinne ndax ñoom ay mbindeef lañ rek comme ñun kon daanaka foofu lañ ci yem daanaka dugg ci li nga xam moo ñu tax a jóg te mooy liñ doon wax rek mooy suñu borom subhaanahu wa taala dafay wax ne dafa bind asamaan ak suuf te bind leen lu dul ci ak dëgg nga xamante ni ci dëgg ci la leen suñu borom subhaanahu wa taala bind dafay ay kawteef ak i kiimtaan yu yéeme yoo xamante ni dafay tax suñu borom dafay tax jaam bi xam ne yàlla moom mooy dëgg wa jaal na layla libaasan wa jaal na nahaara maashan mu bind guddi ak bëccëg def guddi gi mu doon mel ay yére yoo xam daf ñuy wodd dañuy suturaal nga xamanteni guddi gi lu bari daf ci xew te suñ borom balaan mi nga xamanteni mom la mur ci guddi bu ko muri won rek da naka musiba am waye guddi gi lu bari di ci di ci di ci am ay nit di jëf lu bax ay nit di ci profito di ci def ab safaan waaye suñ borom suturaal ñëpp nga xamante ni ku ci nekk bu ko sooboo loo def ci guddi bu ñu xëyee mu feeñal ko comme ni bëccëg gi leeree ba ñëpp mën koo xam waaye suñ borom daan ñuy suturaal suñ borom tamit daal di waxaat ne wa jaalna layla wan nahaara aayatayni fa maxawnaa aayata layli wa jaalnaa aayata nahaari mubsiratan wali tabtaqu fadlan min rabbikum wali taalamu adada sinina wal xisaab suñ def guddi ak bëccëg muy ay kawtéef di ay kiimtaan yu yéeme nga xam ne guddi bëccëg lu yéeme la ndax planète bii ñu nekk nii moo am guddi ak bëccëg waaye am na ci yeneen planètes yoo xam sax suñu borom sàkk na leen bind na leen te yooya fi mu toll nii amuñu guddi amuñu bëccëg kon suñu borom ku yéeme kon li nga gis fii nii suñu borom sàkkaat yeneen yoo xamante ni ay planètes yoo xamante ni am na luy dox fii te doxul foofa ndax masalan ni mu la ko misaalee léegi muy guddeeg bëccëg mu ngi am fii. te fi tol ni manam man nga japp ne sax lumun bëccëg dafa do lo xam lu munta ñak la dafa wara nek nekk suñu suñ borom am yeneen yu amal ci ay planète yo xamanteni amuñu sax guddi amuñu sax bëccëg wa kon suñu borom motax mo mu ne na layla wan nahara aayatayni moy ay kawtif fa ma xaw layli wa jaal naa aayatal mubsiratan léegi-léegi fi tol ni manam maanaam guddi gi dugg manam guddi dugg xam nga guddi mom liñ ci xam dafay lendum léegi léegi fi mu toll nii guddi gi dem ba jeex tàkk te teewul fi mu toll nii mu ngi lëndëm nga am bëccëg gi dugg na bëccëg gi kat dugg na waaye fi mu doon teewul mu ngi lëndëm ba léegi waaw loola mooy wajaxal na ay naxari mu bu seetaan nga xamante ni guddi gi léeg-léegi dafay am ci jamono ñu dem ba guddi gi jeex tàkk mais bëccëg gaa ngi dugg na waaye na teewul mu ngi des lëndëm ba léegi léegi lay tamit ñu ne ci bëccëg ne ci suba gi. ci gi dem ba jeex suba gi jeex ba jeex tak ba timis jot bañ dugg ci guddi ji waaye fi non teewul mu ngi dess di leer ba legi kon yoy ay kawte fi suñu borom la subhanahu wa taala wa loolu nak suñu borom dafa ne li tax ma def ko wali tabtaxu fadlan min rabbikum waaye taalamu adada sinina wal hisab nga xam yow man di ci manam dem di sakku lo am di sakku di liggey maam sakku sa boo demee bu gudd jotee nga daal di mën a dallu mën a tëdd boo ko defee coono bi nekkoon ci saw yaram daal di deñ nga xëyaat mën a amaat doole mën a amaat kàttan goo xam di nga mën a jugaat mën a demaat ci activé yooyu suñ borom ko def ndax li nga xamante ni moom mooy nelaw rek dara gënu koo nekk kawtéef ndax nelaw fi nikku ne yaa ko indi sa bopp suñ borom moom moo la koy indil da ngay tëdd ci mallaa bi rek waxtu wi nga xamante ni bëgg ngaa nelaw da ngay toog di xaar ba suñ borom jox la maanaam xéewalug nelaw nga doog maa nelaw ndax léeg-léeg gis koo xam day tëdd sax waaye fi no pour mu nelaw rek jafe lay am kon nelaw kaawteef la maanaam nelaw kiimtaanuk suñ borom la goo xamante ni maanaam lu yéeme la waaw ah, ndax xamoo mënoo ko mënoo jekk rek nelaw saa suñ borom subhaanahu wa taala jool gi ba tax xéewali suñ borom daf laa jege lool yooyu yëpp nag suñ borom def ko maanaam ak tamit mu ne ni mu sàkkee guddi gi ak bëccëg gi ndax lan wali taalamu adada sinina wal xisaab ngir ngeen di mën a takk di mën a xam at yi di mën a xam bëccëg gi maanaam di mën a xam at yi ak lim bi maanaam wali taalamu adada sinina wal xisaab ngeen xam seeni at di xam tamit maanaam lim bi ndax suñ borom niñ koy faral di waxee yim sàkk ni yëpp mu doon ay kaawteef mu doon ay kiimtaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy mën a gis man koo xam man cee seetantal suñu borom mooy ñi nga xamante ni seen xol set na xol seen xol leer na ba nga xamante ni lu ñu xool rek dañ ci mën a di setantal suñ borom subhaanahu wa taala di ci mën a gis jëfi yàlla ndax adduna dafa bindee noo xamante ni lépp li nga xamante ne saytaane dafa dugg ci mbir yi bu baax a baax a baax moo tax léegi looy xool rek ndax boo gisee scientifique yeeg ñu ci philosophie yeeg ñooñu noonu lépp loo ne suñu borom def na ko maanaam adduna bii nga xamante ne sax suñu borom a ko bind ci mu gën a leer fi ngay sukkandiku. ak lay ak argument yi nga xamante ni moom ngay indi ngir wane ne yàlla bind lii ndax kat maanaam lii ak lii ak lii tax ñoom ci argument yooyu ci lañuy sukkandiku ba wane la yàlla bind ko waaye dafa jékki-jékki rek am moo tax kon ngëm suñ borom rek moo ko mën a defal ab jaam naka laa tahdi man ahbabta walakin allah di man yasha ngëm yàlla rek moo ko mën a defal jaamam ndax fi noonu loo xool ci àdduna ndax taw bi yi nga xamante ni sax suñ borom subhaanahu wa taala moom moo koy wàcc jëmmi taw bi sax fi mu toll nii nit egg na ci foo xamante ni mën naa fexe ba taw wàcc ba mu taw mën naa def ay pexem ndax am na ay bomb yoo xamante ni yuñ créé yoo xamante ni buñ ko defoon ci buñ ko monté fi yenn mën naa waral taw bi maanaam wàcc loolu daanaka sax jëru nga ci jaaxle boo duggee ci internet bi rek da ko gis yeneen dëkk yoo xamante ni am na yu ñuy jël lu mel ni saaru xorom dugg ci seen avion ba mu ti ba ci maanaam niir wi buñ ko ci suyee fi mu toll nii yooyu mën naa créer mën naa tax maanaam mu taw waaye liñ mënut moom mooy maanaam quantité bi nga xamante ni moom moom la war a taw munuñu koo contrôler kon boo sukkandikoo ci barab ba wax ne yàlla kat mooy wàcc lii wala nga indi ay lay yu wane ne maam yàlla kat moom mu ngi nii am na ñoom it lay yooyu ci la ñuy sukkandiku ba ne yàlla amut kon koo xamante ne moom yàlla nummul ci moom ngir mu gëm ko moom fi mu toll nii mënut a ba gëm ndax dafay am kii kiiraayu dox digganteem ak boromam subhaanahu wa taala kon ngëm li nga xam lu am solo la. kon kawteef yooyu yëpp ñi koy gis mooy ñi nga xamante ni seenub xol seen dënd yi suñ boom def na ci xam-xam leeru xam-xam bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril lazina utul ilma kawteef yëpp kiimtaan yooyu yëpp nee na fi mu toll nii maanaam ñi muy leer ci ñoom mooy ñi nga xamante seen xol leeru xam-xam nekk na ci ndax kat ca beneen côté ba doon na wax nee na kawteef yi ma sàkk ci asamaan sàkk ko ci diggante asamaan ak suuf yooyu yëpp wa maa tuxnil ayatu wan nuzur an xawmin laa yuminuun nee na ñi nga xam ne ñoom gëmuñu moom da leen jëriñ dara xoolal tey fa fi mu toll nii àdduna fi mu toll ak li nga xamante ni gis nañ ko ci ay kawteef li suñ borom sàkk lépp ñu xam ne ki lii kenn mënu koo def ku dul aji kaw yi faw am na ko ko def am na koo tëralee nii waaye li muy bëri bëri ak matériel bi nga xamante ni ñi nga xam gëmuñu suñ borom am nañ ko bay mën di gis kawteef yooyu yëpp waaye tey fi na taxul ñu gëm suñu borom subhaanahu wa taala kon maanaam leer la goo xamante ni suñ borom moom moo koy def ci biir xolu jaam bi leer la boo xam suñ borom moo koy def ci biir xolu jaam moo tax suñ borom ne woon innama yaxsha allaha min ibadihi l ulama ñi ko ragal dëgg mooy ñi nga xamante ni maanaam maanaam dañoo ñi nga ñi nga xam ñoo ragal suñ moom dëgg mooy borom xam-xam yi bu ñu waxee borom xam-xam yi jubluwuñ ci rek koo xamante ni jàng na nii rek maanaam tiir yi ba dajale. ndax man nga jang tiir yi ba dajale te du tax fi mu ni li nga jang manam jëriñ la waye tay fi mu ni bo day jotaay ko xamanteni nitu yalla la mo lay leerlal di ubb sa xel di la tarbiya di la tarqiya di def ci yow leerug suñu borom subhanahu wa taala su boba fi mu ni don te xeyna na xamo sax waye lo wax fi mu ni jang sax mënuñ ci din dara ndax li ngay wax day deppo alquran deppo sunna nga xamanteni mu ngi non waaye ki nga xamante ne dafa jàng pare boole yooyu yëpp nag boole teg ci sóobu ci yoonu suñu borom kooku it maanaam ay mbiram dafay gën a am solo rek. waaye fi mu toll nii innama yaxsa laha min ibaadi ulama ñi ragal jig yàlla dëgg mooy ñi nga xamante ni suñ borom def ñoom leeru xam-xam ñu mën a gis kaawtee fi suñ borom yi subhaanahu wa taala ba koy mën di jaam ko mën a sàbbal moo tax tamit suñ borom di wax ne wa yara allazina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwa alxaq di yahdi ila siraatil aziizil hamiid maanaam ñi nga xamante ni ñooy gis li yàlla wàcce ci yow mu doon dëgg leer nañ doon firnde yu leer nañ ñooñu mooy ñi nga xamante ni suñu moom def na ci ñoom maanaam xam-xam kon lu am solo la moo tax jàng lu am solo la tamit boole ci ndax dana la ubbil jumtuwaay la boo xamante ni da nga ci mën a jaar ngir tamit mën a jote feneen foo xamante ni maanaam saa nga jàngoo rek mënoo faa yegg fi mu toll nii waaw suñ borom tamit dafay wax ne ne ci alquran ba léegi ne wax ne innamal muminuuna allazina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun allazina yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiquun ulaika humul muminuuna xaqan lahum darajatu inda rabbihim wa maxfiratun wa rizqun karim ñi gëm suñ borom dëgg mooy ñi nga xamante ni fuñ jàngi kawtif yàlla yi bu ñu xoolee li yàlla bind ci asamaan bind ko ci suuf loolu toujours daf leen di dolli ngëm yàlla ñuy gën di gis ne xam ne suñu borom rek moom moo amal li yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku moom kaawteef yooyu ak kiimtaan yooyu dañ ko war a xam dañ ko war di jàng ndax loolu mooy tax ñu mën di gisee di mën di gis li suñu borom bind loolu dinañ ci dikk ci kanam tuuti waaye kaawteef yi yàlla def nii ni nga xam ne noonu nga war a jàngee tawxiid war koo jàngee fiq war koo jàngee tasawuf noonu nga war a jàngee tamit yeneen yi nga xamante ni ay kawtéef la yoo xamante suñ borom daf koo sàkk ndax suñ boroom moom moo woote ci ñu xam ko war koo jàng war koo gis ndax loolu moo lay xam kawtéef yi suñ borom subhaanahu wa taala sàkk bind ko te mu ci diggante asamaan ak suuf ok kon mu ngi noonu yooyu yëpp nag di ay ay ay mbir yoo xamante ni ngir mu leer ci yow. faaw nag maanaam ngay jataay ak nit yàlla ndax nit yàlla ji tamit toujours moom mooy ubbi sa bëti xol yi ba nga xamante ne da ngay mën di gis di mën di gis li nga xamante yàlla daf ko sàkk nga xam loo xool rek dootoo ko xool xoolum màdd waaye léegi da koy xool xoolub roo nga xamante ni gis ki ci ginnaaw waaw ah, gis ki nga xamante ni moo ne ci ginnaaw ndax yàlla lim bi dafa bind mbir yi waaye tamit di jëf ci seen ginnaaw waaye nag dafay bu tamit ci ñenn ñi nga xam léegi bu ñu ko xoolee dañuy gis mbir moom rek waa di xool kenee ci ginnaaw di doxal mbir yi waaw ki nga xam mooy yëngal mbir yi di ko doxal ñoom nañ ko gis waaw kon tey mu ngi noonu suñu borom moo bind guddi bind bëccëg bind li nga xam moom mooy weer yi bind jant bi tënkuñu yi ñu nag nga xam tey li mu wax ne wala taala mu adada sinin wala xisaab nga xam ne tey jii fi mu toll nii wax naa ko ba tey suñu borom moo ñu ko jàngal ndax fi na boo xoolee ñaari calendrier rek ñoo am ci jamono. moy calendrier jant bi ak calendrier bi nga xam moy calendrier wer ñaar yoy rek ñu am te suñu borom bo xolé ci alquran bi mi jangale montre dafa indi manam batu ash-shams manam 33 fois ci alquran daf ko fi indi nga xol ci wet gi mu wat batu khamar muy 27 fois kon ñaar yoy rek ñu am ñaar calendrier yoy mu calendrier weru calendrier jant bi yoy suñu borom moñ ko doon jangal yoy na bo len bolé daf lay jox 60 60 manam maanaam boo boolee 33 ak vingt 27 daf lay jox 60 60 yooyu boo ko toppee moom moo lay jox li nga xamante ni mooy 60 secondes yi ne ci minute nga toppaat ko mu jox la 60 minutes yi nga xamante ni moo ne ci waxtu nga toppaat ko maanaam tey jii mu joxaat la ndax fi ne waxtu yooyu ngay multiplier di ko multiplier ba mu vingt 24 mu daal lay jox maanaam benn jour nga xam léegi da ngay xool ni suñ borom tënkee doomu aadama yi ci ay mbir. ni mu leen tënkee ci mbir yi nii nga xamante fi mu toll nii yàlla ni mu tënkee maanaam maanaam ndax boo xoolee àdduna li am mooy seconde minute waxtu yooyu moo am waaye tamit boo xoolee suñu borom dafa tënk dina ni mu tënkee seconde yi minute yi ni mu leen tënkee ci ay seconde noonu la tënkee tamit waxtu yi ci ay minute noonu jour bi tamit dafa lay tënk ci ay waxtu muy vingt quatre même vingt quatre heures de temps jour maanaam semaine bi tamit suñ borom tënkaat leen ci ay jour maanaam tamit niki noonu li nga xamante ni moom mooy weer yi suñ borom tënk leen ci ay semaine nga xam tey da ngay am 4 semaine ak lu teg ay jour léegi-léegi maanaam mu daal di mat benn benn benn mois benn weer weer yooyu tamit suñ borom tënkaat leen nga xam yàlla bàyyiwul dara tasaaroo lépp lu ne ci adduna rek suñu borom dafa ko tegal nizaam maanaam teg ko ci aw yoon noonu la suñu borom tënkee bis yi tënkee ko semaine bi tënkee ko weer yi noonu tami tënkee at ndax boo xoolee alxuraan dafa wax ne inna iddata shuhuri inda allahi isna asara shahran fi kitabillahi maanaam fukki weer ak ñaar képp ñoo am fukki weer ak ñaar te alquran sax booy xool ni ma la doon waxee xarañteel ji nga xamante yàlla daf koy def ci alquran léegi boo xoolee ni yàlla waxee inna iddata shuhuri inda allahi isna asara shahran yàlla nee na weer yi fukk ak weer ñaar képp la te fukki baatu shahru sax mu ngi ñëw ci alquran fukki yoon ak ñaar ويسوك مانا موتاح سنع الله الذي أتقن كل شيء يالا دفا خارين يمبري دا لم يوي نون يالا لم يتنك يمبري دفا دوي وار لول دا في نون نمي وحني والو حساب تي القرآن لو يمي دا في نون تيجي بو خولي دا ngay gis ci ay côté suñu borom ni mi tuddé dara ab lim waye da ngay xol bo xolaté ci côté ba lamay jakarlo suñu lim boobu rek ñu tolloo nga xam du ko du ko ëpp du ko yées misaal yi ma la ciy jox mooy tey jii boo demoon ci alxuraan da ngay fekk baat bi suñ moom di wax alxayaatu te mooy dund maanaam baatu alxayaatu suñ moom daal di koy bind indi ci alxuraan luy toll ci téeméeri yoon ak ñeen fukk ak juróom baatu almawt la jàkkaarloo ndax ku dund di nga faatu kon ñaari yooyu dañoo jàkkaarloo moo tax suñ borom tamit almawtu mu ngi koy indiwaat ci alxuraan téeméeri yoon ak ñeen juróom ñoo tolloo képp. ëppul yeesu waaw nekki noonu tamit li nga xamante ni moom mooy nit ñi ak naasu te mooy nit ba loolu dikki na ci alxuraan trois cent soixante-huit maanaam ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom la dikk ci alxuraan boo xoolee tamit al anbiyaaw yi ak mursalin yi dikk nañ ci alxuraan trois cent soixante-huit fois nga xam ni gis nga noonu suñu boom di xarañtalee ni mi xarañte googu muy feeñal ci alquran loolu tamit lu am solo lu mata a bàyyi xel la waaw xam nga ñonante yi suñu borom bi mu leen di yónni daf leen di jox ab risaala buñ dikkee tamit ñuy wax loolu noonu yon maanaam nit ñi da ngay gis suñu borom di wax feec naan la waxal lii waxal laa waxal lii qul wallahu ahad waxal na yàlla rek moom mooy yàlla waaw maanaam waxaan mo waxal qul innama ana basharun mithlukum yuuxee maanaam man mindeef laa comme ni yéen waaye nag dañ maa wax yu xul-xul yooyu nga gis ci alxuraan nag boo xoolee tey fi ne lim dikk ci alxuraan mu ngi toll ci trois cent trente deux fois waaye tamit yonente yi saa buñ mësee dikk wala nit nit yàlla waaye gaa yu baax yi di waxaat nit ñi fu ñu waxee rek daanaka fi xul bu ñu wax rek daanaka masan dañ leen tontuwaat wax ca muy xaalu yooyu ngay dégg ñuy wax rek fi mu toll nii xaalu yooyu tamit ngay wax fi mu ci alxuraan dikk na fi 332 fois nga xam tey jii da kon da nga digg dégg ne fu yonente yi waxee rek ñoom it tontuwaat nañ kon xarañte gi xarañte googu noonu di feeñ ci alxuraan noonu suñu boom di tëralee mbir loolu lu doy waar la lu yéeme la waaw loolu tamit lu doy waar la lu mat a bàyyi xel la tey lu yéeme la ni ki tey masalan baatu iblis iblis ñëw na ci alxuraan 60 fois fitna tamit ñëw na ci alxuraan 60 fois baatuwal fitna. kon fitna soo gis ci àdduna rek seytaane ko fi indi soo si iblis baatam ñëw na ci alxuraan 60 fois waaye tey fintoon yi boo gisee baatu fitna ñëwaat na ci alxuraan 60 fois kon fitna soo fi gis rek ñoom la moom la fintoon yi kon yooyu yu yu yu kii la masalan tey ba ci baatu baatu ar rajulu ñëw ci alxuraan 24 fois baatu an nisaa al maratu yooyu yëpp ak yi koy tegtale yëpp rek boo xoolee lim ba fintoon yi mën na 24 fois bañ cee guddal. waaye fii liñ ci liñ ci yittee rek moom mooy wane xarañte gi nga xamante ni suñ boo daf koy def ci alxuraan tamit ndax boo xoolee ni ma doon leeral léegi ñu dikkaat ci mooy inna iddata shuhuri inda allahi isna achara shahran fi kitaabillahi maanaam weer yi fukki weer ak ñaar la ak ñaar képp la moo tax baatu ashahru suñ borom ci alxuraan fukki yoon ak ñaar képp la ko indi kon weer yi suñ borom daf leen tënk te saarowuñ ba léegi ñu doon fukki weer ak ñaar ñoom it suñu borom daal leen tënkaat weer yooyu ci ay buruj wala xad jaalnaa fi samaa'i burujan wa zayyannaaha linnaaziriin suñu borom dafa tënkaat bu maanaam weer yooyu noonu ci ay buruj buruj yooyu buruj yooyu nekk fukki buruj ak na ak ñaar wa samaa'i zaatil buruj maanaam asamaan si dafa am ay buruj yu fi nekk. masalan tey ngir mu gën a leer suñu borom dafa bind weer yi tënk leen ci ay buruj. muy fukki burju ak ñaar ndax fukki weer ak ñaar moo am suñ borom tënk leen ci ay burju muy fukki burju ak ñaar burju yooyu tamit suñ borom tënkaal leen ci li nga xamante ni moom mooy ay at nga xam day am at lim boo xamante ni buñ ko amee rek fi mu dañuy dañuy commencé waat masalan tey suñ borom dafa tënk burju yi maanaam ci ay at. at yi mu leen tënk mooy ñaar fukki junni at ak juróom-benn ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci ay at noonu la suñ borom subhaanahu wa taala tënkee buur ju yi tamit nga xam ne kon suñ borom bàyyiwul dara daal di tasaaroo ni mu tënkee bis bi tënkee ko semaine tënkee ko weer yi weer yi mu jël leen tënk leen ci ay buruj mais fukki buruj ak ñaar buruj yooyu tamit suñu borom daf leen tënkaan at loolu leeral nañ koy yoon yoon kon suñu borom dara tasaaroo weer yooyu tamit. masalan tay weer wi ñu jëm nga xamanteni moy mooy koor di weeru mag di weer woo xamanteni ni suñ borom feñe na ci ay kawtif ay yërmande nga xam biraa nit yalla yi luñu am ci suñ borom subhanahu wa taala ñu ko amé ci weer wi weeru koor nga xamanteni suñ borom tamit daf ci tijji li nga xamanteni ndax liñ ci waral liñ ci bëgg leer moy ñaari masalan tay weer wi ci bopam dafa am xéewal yoo xam suñ moom daf ko cay def yoo xamante ni ku dugg ci weer wi ba génn yooyu fi war nga ko mën a génnaale ndax suñ borom subhaanahu wa taala bi wax ci alquran chahru ramadan alladi untila fihi alquranu hudan linnaas ñetti aay yi sësandoo yëpp gis nga ni ko suñ borom jeexale aay ba ci njëkk suñ borom daf koo jeexalee laallakum tashkurun ngir rek ngeen sant suñ borom subhaanahu wa nga xamante gaa yàlla yi daan nañ ci màng may yàlla yu bari yu yu am solo ci weeru koor niki noonu tamit buñ ci duggee suñ borom tëj li nga xamante ni mooy bunti sawara ubbi bunti aljana nga xamante ni sa bakkan bi tamit suñ borom notal la ko sa ruu gën a dekki gën a maanaam am doole ci maanaam jaamu yàlla gën ko mën a sàbbaal mboolem yi nga xamante ni dafa doon gàllankoor ci jaamu suñ borom yooyu yëpp suñu borom daal lu koy maanaam fànqal nga xamante ni jaam yàlla daf ci yomb lool da ngay gis koo xamante ni sax léeg-léeg daf daan sàggan waaye buñ duggee ci weeru koor rek dafay daal di commencé nag di farlu nga xamante ni ndax lan laan lakum tashkurun aaya ba ca topp suñ moom jeexalee ko laallahum yarshudun ba ca topp suñ moom jeexalee jeexalee ko laallahum yattaqun nga xam ne kon yii yëpp mën koo màngee ci weeru koor mën ngaa génn ci koor suñ màngaale ci ay may yu mag yoo xamante ni sa ngiirug dund ci des sant suñ borom rek ngay def ndax mënoo ko woon a jëlee foofu feneen fu dul foofu. ni ma ko leerlee gaa yu baax yi daan nañ ci màng màng yu am solo yoo xamante ni tey bëraana lu ñu am suñu borom ci weer woowu rek ci lañ ko amee. niki noonu tamit mënoon ngaa ñàkk ak jub nga xam ti ni jub tëla lool nga dugg ci weeru koor génn ci rek génnaale ci njub loo koo xamante ni njub koo xam daf lay topp ba ilaa yawmi diin niki non tamit wek suñu borom ragal ko jox ko ciir lolu man na la manki waye tay man nga dugg ci wéru ko rek genn ci rek jëlaale ci taqwallahi ko xamanteni da fay am solo lol nga xam li dess ci dund lepp manam dang ko yubale kon yoy yip man nga ko mangi ci ci ci wéru koor yonte sallallahu alaihi wasallam ne sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi na ngeen wor kat bu ngeen ko gisee waye tamit bu ngeen demee ba gisaat ko tamit na ngeen dok Lele léeg tamit fi mu toll di ci bëri lool ci walu walu woowu waaye fi jeruk. Dah, ndax sariya lim saxal ci weeru koor gis gisukbet, bët maanaam nga gis ko gisukbet. saria sariya nungul nanguwul sentu wer ba pare daal koy gis te jëfandikoo maanaam lu mel ni matériel lu mel ni télescope ak yeneen yi ci des nga di ko jëfandikoo ngir xool weer loolu moom sariya nangu ko ndax ya-, yonte moo ne sumu li ru'yatihi ru'ya moy bët baatu ru'ya buñ ko waxe rek fay delu ci bët mune wa nak wa aftiru li ru'yatihi na ngeen dem ba wori nak bu ngeen de wori wori len ci bu ngeen ko gisee ak seen bët sa bët bi da bu ne jak ci wéru woral bu ne ko jakit ba tegaat ko bët woril kon lol da naka ciolu bari ñaari fi non buy ñew rek fay jëral du faral di juru yu mel di di di jur yu mel non waaye fi ne jëru ko da sariya moom gis-gisu weer moom bu day gis-gisu bët moom la nangu gis ko direct ak sa bët waaye nag bu fekkee tamit gis gi nga xamante ni mooy gisu maanaam télescope wala gisu li nga xam da jëfandikoo ay ay ay meqraab li ñuy wax télescope maanaam ay matériel yeneen yoo mën jëfandikoo rek ci li ñuy xoolee weer ba gis ko ca te gisoo kook sa bët direct loolu moom sariya du ko nangu gis ko suñu sariya du ko nangu ndax fi mu toll nii suñ borom ci boppam subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama defal ko ay bët ba di tamit suñ borom tamit defalu ko li nga xamante ni moom mooy leer ndax bët amul leer maanaam fi ne bët ni amul leer yeloo kaawteefu suñ borom bu yéeme la fi ne bët gis la am moom dafay gis rek waaye leer moom la ngay xool co loola ca la leer nekk boo xoolee weer wi gis leer ga ngay gis bàyyikoowul ci say bët waaye ma nga bàyyikoo ca leer ga ni nga tamit boo xoolee jant bi daal di koy gis leer gi ngay gis loola ma nga bàyyikoo ca jant ba waaw loola ci jant ba la bàyyikoo mais bàyyikoowul ci say bët nga xamante ni appareil bi nga xamante ni moo ne ci biir bëtu doomu aadama di gis appareil boobu noonu moo gën a doy gën a yéeme ëpp doole mboolem yi nga xamante ni moom lañuy def ci yi nga xam mooy caméra yéeg yi ci des yëpp télescope yeeg yooyu noonu appareil yooyu ñuy def noonu ci matériel yooyu noonu appareil bi suñ borom subhaanahu wa taala defal bët moo gën a doy gën a yéeme te it moo ëpp doole ñoom ñëpp moo tax fi mu ni bët ñàkk gi nga xamante ni moom la ñàkk am leer moo tax fi ne lépp loo xool rek couleur ba loola amee rek loola lay lay jox. fi ne bu xonqee xonq rek ngay gis bu weexee weex rek ngay gis bu bulaa bula rek ngay gis. loolu fi ne xikmaab suñ borom la moo tax suñ borom defulut bët leer ndax bu ko defoon mu nekk bët amee leer loo xoore benn couleur la lay jox loolu tamit gis nga suñ borom nim ci doxalee xarañam nga xam tey bët bu fekkoon dafa am leer loo xool rek benn couleur la lay jox waaye suñ borom defu jig leer moo tax gis rek lay man moo tax lépp loo xool rek couleur bi loolu amee rek moom la moom la bët bi jox fi mu toll nii moom nga koy mën a gisee masalante tey tamit boo xoolee jant bi ni ma ko waxee woon léegi leer gi mu ngi bàyyi ko jant bi waaye tey fi mu nii jant yi boo ne koo jàkk di ko xool rayon yi nga xam mooy jugee ci jant bi di ñëw ci say bët soo xoolee ne jàkk maam tegguwoo bu yàggee rayon yi nga xam mooy jugee jant bi dafay ëpp doole appareil bi nga xamante ni moom moo nekk say bët te su boobaa loolu dafay yàq appareil bi nga xam moo nekk say bët moo tax léeg-léeg boo ne tagg di xool jant bi teewoo teggi booy boo teggee tuuti rek dangay ngay gis dafay xaw a lëndëm moo tax fi mu toll nii mu ngi noonu moo tax nga daan gis mag ñi bu njëkk ñu daan wax ne soo jógee ci leer ne daraax ci lëndëm rek fi mu nii jinne daf lay joxe fekk booba li tax ñu ko daan waxee noonu mooy li nga xam moo ci nekk ci wàllu wér gi yaram yum lay mën a maanaam wàllu wér-gu-yaram maanaam ay jafe-jafe wér-gu-yaram bu lay mën a teg wala mën nga faa jógee sax di say wala yeneen yeneen di la mën a dal ngir nag ñu bëgg nga moytu ni ko moo tax ñu boo jugee cig leer daane daraax ci lëndëm su ko defee fi mu toll nii jinne daf lay joxoñ fekk déedéet jinne joxuñu la de waaye dañuy bañ nga def ko ndax suñu moom ni mu bindee doomu aadama hormone yi nga xamante ni moo ne ci doomu aadama ndax suñu ma dafa bind doomu aadama ci li nga xamante ni mooy ñeenti maanaam mooy turab yi naar yi ma yi hawa yi bu ko defee nag boo nekkee ci li nga xam moom mooy ci naaj wi hormones yi yi nga xam moo la composé su ko defee loolu dafay chargé wu day chargé wu ci tàngooru jant wi moo tax boo jugee ci naaj ne daraax ci leer ci ci néeg nga xam da ngaa ci naaj rek daraax ci lëndëm rek su ko defee wala nga dugg ci néeg rek da ngay gis ne néeg bi dafay lëndëm donte sax dafa leer te loolu nag léeg-léeg mën na laa jural ay affaires yi maanaam wàllu problème mu santé. yooyu mën na laa am yum ci lu mu la ci maanaam jural moo tax mag ñi bu njëkk ñu ko daan wattandikoroo naan la boo duggee ci jugee ci leer rek ne dara ci lëndam rek jinne daf lay joxañ loolu dañoo bëggoon ne nga moytandiku ndax mag ñi bu njëkk dañu daan wax terme yoo xamante ni lañ ciy jublu moom mooy nit ki moytandiku dara ngir bañ koo def ndax lan am na lu ko ci mën a gaañ man ko cee lor ak kon suñu boroom subhaanahu wa taala buy wax ci alquran loo xamante ni gis nga xam matériel amu ci yoon amu ci dara nga xamanteni du lo xam da ngay jëfëndiko dara ngir gis dara so ba suñu borom dafa indi baatu ru'ya lolu bo dewe ci alquran du jeex mo la yonta bi wax muy wax ci ko war de wax ne suumu li ru'yati waye nak wa aftiru li ru'ya bu ko sebeut ne dajji dal ba gis ko dal woral waye nak bu ko nek wa tegg ba gis ko rek mom wori kon lolu jëru ciow motax alquran mom manam loolu léeg-léeg daf koy wax bu waxee baat boo xam dafay jëfandikoo loo xamante ni baat boo bu waxee loo xamante ni dafay dafay jëm ci gis-gisu bët soobaa dafay indi ruya léegi-léegi bu dee nag loo xamante ni da jëfandikoo dara ngir xool parce que lu mel ni ngay jëfandikoo miqraab télescope ngir xool dara soobaa dafay jëfandikoo beneen baat waaye du jëfandikoo li nga xam mooy ruya boobaa dafay jëfandikoo baat la ñuy wax nazar maanaam wala albasar moom lay jëfandikoo waaye du jëfandikoo baatu ruya ruya moom foo ko gisee rek li muy tegtale mooy gisu bët direct amul caméra amu ci yoon maanaam télescope amu ci yoon leneen lu ñuy jëfandikoo ci yooyu noonu yëpp amu ci yoon kon moo tax fi ne boo xoolee ci alquran bi muy wax qul lil muminina yaghuddu min absarihim wa yaxfadu furujahum ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون سن بروم موم آي وول غيس سن بروم آي وول غيس نا أدنا بي كوفي نيك ديغا غيس جيني لم لا آي كاي موي لي ني واخ بصر ولا النظر موي خولوب سيتانتال دا تا بوني جاك دارا با خول كو ريك خول بو نيك موم بو خمول لوم دون خول بو نيك توسو دنج لاكاي جيغال وايي بو خولي خولوب نياري ريك داكار دا فاي دوغ دا خولوب نياري بي دا فاي دوغ سي سيتانتال da bi nga nee day rek jëm ci gis dara fi ne xamoo lu doon waaye léeg-léegi sa xel dana la ah, gis nga naa kat lu mu doon dellu gi ngay delluwaat nag ngir di xooli loola dellu googu mooy dellu settantal mooy tax ñu la boo ca delloo rek am baakaar waaw waaye gis moom kenn ayugo ayu ayu suñu borom kenn ndax kuy dox di nga dox di xool fi ngay jaar ndax bu dul loolu oto yi dinañ la yenu baa nga mbëkku garab wala leneen la leneen moo tax fi mu nii boo xoolee jigéen xool gi nga xamante ni mom ngay xol ngi xol xam na mu mel loolu la suñ borom ay ndax motax ci jawharu nafis da ngay deg serign bi di wax ne wa manau an nazrata lin nisaai al ajnabiyyati wa kal hasanat moy liñu ay moy an nazra moy xoolub setantal way ru ya kenn gis ayu kenn moo tax baat yooyu noonu tamit di ci taxaw tamit dafa am solo ndax legi da fay beuri lo xamanteni tay ji suñu moom daf koy wax ci alquran masalan buñ duggé ci li nga xamanteni mom moy manam ni suñ borom bindé aduna bi nga xamanteni ni dañuy wax naan dafa ro ñi naan dafa tap ndar ñu ñu lañu koy waxé rek waye bo dikké ci alxuraan daf la koy leer leer gu leer nañ suñ borom do ne alam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanat ratqan fa fatahnahuma wa jaalna min al mai kulla shay'in hayyin afala yu'minun badi suñ borom di jëfëndiko tay wax lu jëm ci nim binde kawnu bi ni mu ko tëralee baari yooyu dañ ciy settantal su ko defee yooyu tamit dafa am njariñ ndax alxuraan dafa xóot lool moo tax baat bu ci nekk rek ay baat yi baat dafa xóot am na juróom-ñaari maanaam biir te loolu sax xëy na amaana mën nañ ciy jublu lim bi rek waaye mën na koo weesu fi mu toll moo tax baat yooyu de ko xool alam yaral lazina kafaru anna samawati wal ard kaanata naa fatahnahuma nga xamante ni boo xoolee dafay mel ni suñ mën day wax ne mbir yii yëpp nga gis dafa meloon ne rek benn bul benn ballon ni mu bindoo comme ab nen waaye suñ borom daal koy xar génn ci géej gi génn ci li nga xamante ni moom mooy suuf si génn ci weer yi génn ci jant yi lépp daal ciy génn bu ko defee nag yow boo sukkandee foofu da ngay jàpp ne kon suuf si daal dafa nekkoon benn lu mel ni bul ñu xar ko kon léegi dafa mel lu tàpp ndar noonu waaye nag nga dikkaat ci alquran suñ borom di wax ne waa ilal ardi kayfa sotihat yàlla moo bind àdduna bind suuf si taalal ko taalal ko moo waxaat ne nag wal arda baada dalika daxaaha ginnaaw bi loolu lépp amee nag wala arda baax dalika daxaaha maanaam baatu daxaaha li muy firi mooy loo xam dafa amee forme nen maanaam sàkklu bi nga xamante ne amee mooy sàkkluun baydawiya manam suñ borom ni bindé souci wal ard ba'da dalika dahaha moy souci forme bi mu am moy forme bu mel li nga xamanteni moy rawut ba melni ni bi abul mel deug deug waye saklu bi mu amé mu ngi melni comme nen noonu mu mel kay kon yooyu tamit diko diko diko top lo am solo ndax alxuraan limi leral ndax yàlla moné ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al latiful khabir gënoo ma xam li ma bind kon moom mi ko bind ni mu ko waxee noonu rek la demee waaye lépp lu wuute ak loolu nag doonte sax ki ëpp xam-xam ci àdduna moo ko wax it maam loola moom nukkul xam-xam ndax xam-xam boo déggee ñu la xam-xam mooy lu dëppoo alquran ak sunna lépp lu wuute ak moom nag loola moom fi mu doon nii du xam-xam daal ok du xam-xam nii boo ko jàppee jàppoo xam-xam ok moo tax suñu borom tamit di wax ci alquran lépp lu muy wax lépp lu muy wax. te jublu ci gis-gisu bët maanaam dafay jub dafay indi baat boo xamante ni dafay consi considéré maanaam li nga xamante ni moom mooy bët kese caméra du ci dugg télescope du ci dugg lenn ci li ñuy jëfandikoo ngir xool dara du ci dugg ma indil la ci beneen mooy wataral jibaala taxsibuha taxsabuha jaamidatan wa hiya tamurru marra saxaabi صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون سنجب أمنا نير ييغي جسني داني داني داو هم نير ني داو يموم لير ناني نير داني داو تا بو خول داني جسني نير داني تخو ني بين بلاس مي داني دي بلاس يو نونو آه، ني دي بلاس يو ونك تاميت لينغا خامن تني موم موي نينغا وحاتي مونتاني تاميت نونو ني دي بلاس مونتاني داني دي تاميت waye tamit masalan foofu tamit li ci am seetantal maanaam bàyyi ci xel mooy ni nga gisee niir yi ñuy ñuy wër noonu di daw noonu la montagne yi di dawee waaye montagne yi tamit ni ñuy dawee gaaw giñ gaaw moo tax yow fi ne mënoo koo gis boo leen xoolee ni nii yaa ngi gis montagne loolu leer na mais nag daw bi moom doo ko gis moom doo ko yëg boog waaye tey masalan tey buñ génnoon adduna bi buñ génnoon adduna bi nii masalan ba tiim jëmmi suuf si nga xam génn nañ ko completement nga xam dañ koy tiim nii di jàkkaarlook moom mu mel ni nen noonu bindoo su boobaa dañ koy buñ koy xool mën nañoo gis montagne yi ni ñuy dawee daw bu gaaw sax montagne yi ngi gis nii fi ne taxawuñ benn place dañuy daw de ndax waxoon naa ne montagne yi ay pont lañ yoo xamante ni suñ borom daf leen daaj ci suuf si man su ma jëloon sama baaraam bii def cib lam maanaam astafurlah su ma jëloon sama baaraam bi def ci jaaro jaaro bi ma duggoo ko sama baaraam sama baaraam bu yëngatoo jaaro bi yëngatu fu sama baaraam jëm jaaro bi daf fay jëm kon tey fi mu toll suuf si montagne yi moom la suñu borom daaj ci suuf si ngir ñu koy dëgëral nga xam équilibre bi nga xamante ni suuf si daf koy am loolu montagne yi moom moo koy defal léegi nag su ko defee euh, mooy tax suuf si mën a dëgër waaye nag ñoom taxuwuñ waaye tamit dañuy daw dañuy daw fu si daw jëm rek ñoom dañ fay daw nga xamante ni nii suuf si dawee niir yi di ko dawee noonu tamit la montagne yi di dawee kon leer naa la boo génnoon tey suuf si léegi fi mu doon boo jàkkaarloog suuf si da nga koy mën a gis moo tax suñu mën ne wa wa taral jibaala taxsabuha jaamidatan wa hiya tamurru marra sahab dañuy daw comme ni niir yi di dawee sunu allah illasi atqana kulla cheyin innahu xabirum bi ma tafaaluun moo tax tamit ci feneen ci alquran da ngay gis ndax suñu borom ni bindee suuf si def ko muy lu mel lu tàpp ndar nii lépp daal di maasaloo yamadoo benn déedéet dafa mel ni dafa am li ñuy wax plate lii maanaam anglais di ko tuddee earth plate tectonique maanaam li ñuy wax earth plate tectonique noonu la ko suñ borom bindee nga xam dafa mel ne ay mbir yoo xam ne dañoo tegaloo nii waaye duurut ndax tey boo xoolee àdduna di ko gis mu mel ni benn bul noonu ñun ci kaw gi ci lañ dëkk parce que tey boo jëloon ab bal bal bi nga teg ko nii ñun ci kaw gi foofu fi lañ nekk mais nekkuñ maam ci biir ga nag dafa am na ko suñ borom bindee. xaw ma yoo xam mu ngi leer waaye tey fii ne boo jëloon ab bal teg ko nii ci kaw gi ñun foofu lañ nekk di fi dund waaye nag li ko féete suuf lépp ndox la ci biir ndax ci biir gi da ñuy gis waaye ci biir gi nag dafa am na ko suñ borom bindee yaa ngi dégg dafa am na ko suñ borom subhaanahu wa taala bindee ndax tey boo xoolee li nga xamante ni ndax yàlla bindul dara luy lor doomu aadama volcan yi nga xam da leen di gis ak maanaam. tremblement de terre yi earthquake yi nga xam da leen di gis ñuy am di yàq lu bëri ci kaw suuf loolu mënutoon a ñàkk ndax loolu mooy tax suuf si di mën a dund ndax loolu bu amut doomu aadama yi fi mu toll nii seen dund ci àdduna du fi mën a jeg maam àdduna bi dafay explose dafay dafay yàqu kon faw yooyu di am ngir suuf si di mën di dund kon yàlla li muy amal lépp léeg-léeg ñu di ko xool mel ni loo xamante ni day mel ni daal lii lu lu doy waar la ci ci xool ndax muy yàq waaye ndax loolu mooy tax suñu dund mën a jag volcan yi ngay gis nekk earth earthquake yi ngay gis yëpp muy tremblement de terre yooyu yëpp mën a ñàkk ci kaw suuf yaa ngi dégg ndax suñu mën dafaa ci alxuwaan ne waalqay fil ardi rawaasiya an tamiida bikum wa anhaaran wa subalan la allakum tahtaduun suñ borom ni mu bindee suuf si defu ko mu mel ni lu mel ni dafa roo nekk lépp maasloo yamadoo déedéet dafa mel ni ay plate maanaam tectonique maa lay earth plate tectonique nga xamante ni lépp dafa mel lu tegu ci lii di tegu ci lii tegu ci dee fi boo xoolee tremblement de terre yi li koy waral masalan tey euh, maanaam maanaam fi ne continent yi ngay gis nii continent yëpp yi ngay gis maanaam suuf si dafa am li ñuy wax plate léeg-léegi maanaam continent yi dañuy tegu ci kaw plate yi yi ci kaw plate yi mooy yooyu suuf si am léegi nag plate yooyu noonu tamit nekkuñu benn place tooguñu benn place mais dañuy déplacé wu tamit dañuy déplacé mais ni ñuy déplacé nag maanaam doonu lu gaaw les déplacé bu xaw a yéex la ñuy déplacé noonu tamit léegi-léegi tamit fi nii li tax léegi-léegi nga gis ci benn dëkk maanaam suuf si yëngatu li koy waral mooy masalan plate yooyu nga xamante ni mooy plate yooyu nga xamante ni moo am ci suuf si bépp dëkk boo xamante ni dafa nekk ci diggante plate yooyu noonu yaa ngi dégg léeg-léeg plate dañuy mbëkkante dañuy dem ba dajaloo. léegi nag buñ dóorantee nag bu fekkee benn dëkk boo xam ne dafa nekkoon ci seen diggante dëkk boobu toujours dafay souffrir li nga xamante moom mooy tremblement de ndax fi mu toll nii mënuma la ko woon gis ko waaye tey fi mu toll nii masalan tey su ma jëloon benn benn benn ni ma ko mën a gën a leer mu leer euh, benn mbiskit masalan nga teg fii benn mbiskit teg fii benn mbiskit léegi ci diggante bi nga teg fii benn xottu maanaam. garab wala dara lu mu xott xob rek wala dara nga teg ko ci diggante bi maanaam benn biscuit yi benn biscuit yi ñooy misaaloo ci plate yi léegi nag xoboo ne ci diggante bi mooy misaal ab dëkk léegi nag bépp dëkk boo xamante ne wala continent boo xam ne dafa ne ci seen diggante tey jii fi ne ñaari plate yooyu buñ ñu tasantee rek léeg-léeg bu ñu dóorantee ba mbëkkante noonu dafay waral dëkk boobu nekkoon ci seen diggante faw dafay am li nga xam mooy tremblement de kon léegi-léegi tamit loolu mën naa am ci kaw suuf si léegi-léegi mën naa am ci li nga xamante ni mooy géej ji boo amee ci géej gi loolu plate yooyu noonu bu ñu mbëkkantee dajante loolu tam mën naa suq li nga xam moo la yax nga xamante ni mooy tax ndox mi di daw di dugg ci biir maanaam yi nga xam moom mooy dëkk bi di yàq lu bëree bëree bëri ci dëkk bi nii waaye tey ñoo xam ne ba léegi loola maanaam yërmande suñu borom képp la subhaanahu wa taala waaw yërmande yàlla képp la ndax moom mooy tax noonu suuf si def noonu lu mënta ñàkk la ndax mooy tax doom dunduk doomu aadama fii man fee jëkk mooy tax tamit suuf di mën di dund bu baax nit ñi mën fee dund ci jàmm ak salaam donte xëy na nag léeg-léeg su amee mën naa waral jiyee ju rëy rëy waaye nag ba tey tamit rek yërmande rek ko waral ok kon suñ borom dafa am nu mu bindee suuf si dafa am nu ko tëralee waaw ah, nga xamante ni mu ngi noonu kon yooyu yëpp ngay gis. muy am ci kaw suuf yooyu yëpp yërmande suñu borom la suuf si nag noonu ma ko waxee nga xam suñu borom dafa ni mu bindee suuf si nga xam mbir yi dafa meloon lu mu bon doonoon benn bul suñu borom jëlee leen ci xar ko lu ci ne mu génne ko ci génne ci lee génne ci lee génne ci lee ba suuf seeg weer week jant beek yëpp mu génne ci noonu nag ne suñu borom subhaanahu wa taala di boolewaatee lépp ba dajale waa leen ba ñëpp delluwaat ca tomb booba bañ jugee woon. ba tax suñu mën wax ci alxuraan di wax ne yawma natwi samaa ka tayyi sijilli lil kitabi kama badana awwala xalqin nuiduhu waadan alayna inna kunna faailin suñ borom nee na lépp nag ngeen gis ci àdduna àdduna bii nga xamante ni moo tax ngeen fàtte suñ borom ba mu fees seen bët suñ borom nee na dinaa ko delloowaat nag ca tomb ba fa mu jógee woon naa leen delloowaat ñoom ñëpp foofa fi leen fa leen suñ borom delloo subhaanahu wa taala kon mu ngi noonu kon li am solo ci àdduna rek moom mooy ñu jaamu yàlla sàbbaal ko mboolem li suñ borom sàkk lépp loolu lépp dafa maasindoo di wone ki nga xam moo ko bind lépp li suñ borom subhaanahu wa taala bind dafay tegtale aji kawe ji dafay tegtale jëmmi suñ borom subhaanahu wa taala waxuñu jëmmi yàlla mais dafay tegtale jëfi suñ borom dafay tegtale jëfi suñ borom subhaanahu wa taala boog mu leer waaw ndax tey jii fi mu toll nii noonu ko seeg do waxee lépp lu yàlla bind suñ borom dëxëñ na ci lépp lépp lu yàlla bind rek suñ borom dëxëñ na ci lépp kon lépp lu suñ borom bind soko ci xol rek dang ci meuna gis ay jëfam nee la woon kàttanam wala dolem wala man-manam qudram iradam ilmum hayatam leppum daf lokay won kon mu ngi non kon dal ñu xamne yonte bi lim mu digle woon mooy suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi batru ru'ya limi leral moy leeral gis-gisu bët direct maanaam caméra amu ci yoon télescope amu yoon ndax yonte bi wax ne bu ngeen gisee weer wi na ngeen woor bu ngeen ko gisee na ngeen dog loola xamoon na ne weer wi mu ngi ci asamaan si toujours ndax weer wi moom musta jug ci ne ci asamaan si musta jug ci ne ci asamaan si ndax toujours mu ngi ci asamaan si léegi nag nekk gi muy ne asamaan si te yow doo ko mën a teg bët loolu mooy kaw kawteef waaye jëfandikoo ay matériel kay gis ko loolu du kawteef ndax toujours mu ngi ci asamaan si de toujours donte na xëy na léegi-léegi am na jamono yoo mën naa ne ci asamaan si nga xool ko bët ak nga teg ci télescope yi gën a garaaw ci adduna bi du tax nga gis ko ndax suñu borom léegi-léegi mu denc ko ci benn ci ligne asamaan yi doo ko mën a teg bët moo tax yàlla ko yéemel fi ndoon ni lu ko soob man nga ko gis waaye lu ko sóobul doo ko gis moo tax yonent yàlla Moussa waxoon suñu borom ne ko maanaam dañoo gis kat nga wax ne bi nga bindee asamaan bopp ak suuf da nga leen woo suñ borom da leen a woo daa leen wax ne xaala ñu ñoom bi mu leen itina taw an aw karhan kaay leen yow asamaan ak suuf ñoom ñëpp ñu daal di maasi daal dikk xaalat ha atayna taain ñu daal di wax ne ko ñun ko ñu ngi nii dikk rek di la topp di diglu say ndigal waaw xee fi kulli samain amraha ku ci nekk suñ borom daal lay digal say mbir yi nga xamante ni moom la la sant nga ne ca mission boo di ca dox yent yàlla musa ne suñ borom booba su fekkoon ne suuf dafa bañ wala asmaan bañ kon nooy def moy kon ma digal ben ci sama rap yi nga xam aw mbindeefu suñ borom la mu lek leen wan leen ci lu matul ben sa ben seconde matu ko nga xef xefu bët du ko mat suñ borom yonte yalla musa la kon nga ana ana kon xana kon ku yeme la suñ borom ko raboo ma ko denc ci ben sama njiindi xam-xam koku nak eggo ci man ko xam kon suñ borom lu mu nëmmul nga gis ko xamoo lu mu nëmmul nga xam ko doo ko xam wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma shaa kon weer yi mën naa ne ci asamaan si toujours léeg-léeg nga di ko gis caméra ak bët ak yi gën a garaaw télescope yi gën a garaaw ci àdduna ba ci satellite bi nga xamante ni sax mooy wër suuf si nga xamante ni digganteem ak suuf si mu ngi mu ngi mu ngi toll ci téeméeri kilomètre yooyu sax du ko mën a gis kon yàlla ku yéeme la subhanahu wa taala waaw kon yooyu nag moo tax gis-gisu bët nii moom mooy tegtale moom la alxur moom la sariya nangu ci weeru koor waaye tamit gis-gisu bët ci bu ñu waree moom la sariya nangu waaye sariya nanguwul ngay jëfandikoo ay télescope ak ay caméra yu mel noonu di gis weer nanguwu ko yàlla nag buy wax loo xamante ni maanaam bët amu ci yoon dangay jëfandikoo matériel jëfandikoo ay télescope ngir mën koo gis dafay jëfandikoo beneen baat. moo tax comme yàlla xamoon na ne nag dinañ dem ba jëmmi jamono ñu egg ci defar ay matériels yoo xamante ni dañuy mën a egg ci di gis kaw kaawteefu yàlla yi ndax li yàlla bind ci asamaan bind ko ci suuf bind ko ci diggante bi ci ay trou noir yu doy waar yoo xamante ni suñ borom di wax ne falaa uqsimu bil xunnasi al jawaaril kunnas mu ju doy waar yoo xamante ni tey fentoo ni lu ko jege daf koy lekk nga xam ay black hole ay white hole yoo xamante ni jant bi li muy leer leer tey jii fi mu toll nii ñooñu ñoo leen gën a leer am na ci bidd yoo xamante ni jant li muy leer leer leer yooyu ñoo ko gën leer fuuf te ba leen yàlla bindee ba léegi seenu leer ñu ngi daw di ñëw ci àdduna ba tey yegg seeguñ te leer waxoon naa ne segont bu ngeen bu ne mu ngi daw ñetti téeméeri junniy kilomètre kon loolu lu gaaw la kon ana yooyu fan lañ nekk. moo tax boo gisee yéefar yi di weddi rañaan gi nga xam moom la bi defoon dañuy sukkandiku foofu dañuy gis ne yenn ci planètes yi ba leen suñu borom bindee ba léegi seen leer mu ngi daw di ñëw ci àdduna te ba tey egseeguñ te xoola ba suñu borom bindee àdduna ba léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñëw ne ci benn guddi nag mu def ci isra ak mi'raj ñoom ñoom ñu daal di sukkandiku ne loolu mun a nekk comme yàlla bi mu bindee àdduna ba léegi kay lii seen leer mu ngi ñëw te leer nim mu gaawee nga xam dëru gënu koo gaaw te yàlla bi mu bindee adduna ba léegi leer yooyu mu ngi daw seen leer yooyu ci maanaam planète yooyu noonu jar biddiw yooyu seen leer mu ngi daw jëm si ci aduna tey seeguñ kii ne moom man rañaan naa ci benn guddi def ci isra al mi'raj dem dikkaat ñu ne loolu ñoom mun ñoo nekk mënta nekk nga xam ñoom dañu tënk suñ borom ci seenum xel te yàlla nag dafa weesum xel yàlla dafa weesu xel yàlla moo tënk doomu aadama ci ay mbir waaye suñ borom dara tënk ko lu ko soob mën na ko def waaw yàlla mi jël nit teg la ñaari nit xam nga ne ko kon dara dara dara yéemu ko jël jigéen dugal ci moom bii ci biiram nit mu de ca dund waaw ah, nga gis nit muy dox tekk ñaari nit la tegale <laughs> nga xamante ni kii dox ni am na nit ku nekkaat ci biiram di dund ci moom sa yaram wii rek fi ne boo xoolee ay mbindeef yi mbindeef ñoo ci nekk di ci dund xam nga loolu kawteef la suñ borom nee na sa nurihimu ayat na fil afaax wa fi anfusihim xatta yatabayyana lahum annahu alxaq kawtif yi yàlla def fi na sa yaram yi boo ko xoolee ay mbindeef ñoo ci nekk di ci dund mais doo ko teg bët malla bii boo ci tëddee fi na doon ay mbindeef yu bëri ñu ci nekk di ci di ci dund mais yow doo ko teg bët waaye tey boo jëfandikoon matériel yi nga koy xoolee jumtuwaay yi nga koy xoolee da nga koy mën a teg bët man koo gis yaa ngi dégg léegi nag comme suñ borom xamoon na ne jamono dina ñëw bañ egg ci man di jëfandikoo ay matériel ngir mën di xool ci kaw ndax kawteef yàlla yi li tax nga mën koo gis da ngay jëfandikoo ay matériel ngir mën koo gis ndax li fi ne ci tournoi li fi ne ci biddiw li fi ne ci jant li fi ne ci planète yooyu yëpp ngir nga mën koo gis doo ko gis ak bët waaye nag fi mu toll da ngay jëfandikoo li nga xamante ni moom mooy télescope wala yi jumtuwaay yi nga koy xoolee ngir mën koo gis moo tax yàlla bi ñuy waxandikoo foofu noonu jëfandikoowul baat ruya ndax ruya bu ko waxoon rek gis-gisu bët lay doon waye nak mënoko gis bët motax suñu moo ne qul unduru qul unduru maada fi samawati wal ardi wa maa tuxni l ayatu wa nuzuru an qawmi la yamin qul unduru moy setantal len li ngay setantal nak da ngay jëfëndiko am matériel ngir setantal ci loola ngir man ko gis qul unduru maada fi samawati wal ardi kon yàlla xamone ne dañ dox ba yeksi ci ba man ko gis motax yi ngay gis ci aduna yëpp suñu borom tuddon nako avion suñ borom tuddoon na ko ci alxuraan moo tax ki ko njëkk a créé ci alxuraan ci la ko sukkandikoo oto yi nga xam dañ koy war suñ borom tuddoon na ko wa ja'alna lahum min mislihi ma yarkabun ba ko yàlla di wax maanaam kenn xamu kañ la ñu dox ba dog ci yegsi kon yooyu yëpp ay kaawteef yi suñu borom la subhaanahu wa taala yoo xam ne moo ñu ko sàkkal fii ci àdduna kon yàlla waxoon na ne qul unzuru maata fi samawati wal ardi wa ma tuxni l ayatu wan nuzur an qawmi la yumin kawteef googu na li muy yéeme yéeme li muy doy waar doy waar ñi gëmul moom da leen wàññi dara nga xam te ni maanaam philosophie scientifique yi li leen gën a jaaxal mooy ne suñu borom bindee kawnu bi waaye li mu nag li mu leen di jaaxal jaaxal taxul mu gëm lu mu tax ñu gëm suñu borom subhanahu wa taala ba tey tamit gis nga yàlla bu dee wax loo xamante ni gis-gisu da ngay jëfandikoo matériel lu mel ne ngay jëfandikoo télescope bala ngay jëfandikoo jumtuwaay yi jëfandikoo di ko xool toujours du jëfandikoo ruya moo tax mu ne afalam yanzuru ila samaai fawqahum kayfa banaynaha wa dayyannaha wa ma laha min furujin ndax ñoom settantaluñu xool jëme ci asamaan ni ko suñ borom tabaxé ni mu ko defee ni mu ko bindee afalam yanzuru ni ko noonu tamit da ngay gisaa ci yeneen côté muy wax ne afalam yasiru ci suuf bu dee ci suuf si muy wax ne ndax suuf si am na fi yàlla bind yoo xamante ni suñ boobu dafay wax ne da ngay xool ci yooyu ndax lan mu mën laa jaaj mën laa soñ mu wax ne afalam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kaana aqibatu allazina min qablihim kaanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa athaaran fil ardi fa ma axni anhum ma kaanu yaksibun suñ borom nee na am na ñu leen fi jiitu woon ñu leen ëppoon lool ëppoon leen doole ëppoon leen kattan ëppoo leen ay jeexintal ci kaw suuf ndax ñoo ñu xooloo leen seetantaloo leen doxoo leen ci kaw seetantal ci ñooñu fa yàlla jaaroon ak ñoom fa yàlla mujjoon ak ñoom loola mën leen a jaaj mën leen mën leen a soññ daf tey fii jamono toll ba ci sax nit yi luut ya ñooñu fa suñ borom na suñ borom ña fa doon ca dëkk ba dëpp suñ borom dëppoon suuf si tey dem nañ ba egg ci ba yooyu yëpp fi mu toll nii egg nañ ba gis yooyu yëpp waaw fa yàlla jaaroon ak ñoom. yooyu yep nak da ngay dox di seetantal di xol mbir yi ci jàng moy tax nga man ko gis niki non da fenen tamit da fay wax ne awalam yasiru fil lardi fa yanzuru kayfa kana aqibatu allazina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atana fil l ardi fa akhadhahum allah bi dhunubihim fa ma kana lahum min allah min waqin gis nga batay non rek la gis nga kon bu fekke tamit gis go xamanteni gisuk beut la kon leral na bu gis go xamanteni caméra amu ci manam beut amu ci yoon faaw da ngay jëfandikoo matériel ngir mën koo gis suñ moom day wax ne afalam yes maanaam unzuru xool leen seetantal leen bu dee nag gis goo xam gisug bët la suñ borom dafay jëfandikoo baatu ru'ya moo tax muy wax ne afaraayta man ittaqasa ilaahu haweehu xanaa gisoo kii nga xamante ni dafay jàpp dafa topp xam jàppee ko muy yàlla kooka kat doonu loo xamante ni dala koy wax ngay jëfandikoo caméra ki ma yoon na di xool kooka déedéet ko gis nit koo xamante ne bàkk nam xam rek lay toog suñ boon ne afaraayta xanaa gisoo kii nii bët caméra amu ci yoon bët rek ni ki noonu tamit yonente ba mu nekkee màkk daan julli aboo jahlin daan ko aaye daan ko gàllankoor mu a araayta allazi yanhe abdan xanaa gisoo kii nga xamante ni dafay julli moom moom aboo jahlin mu di ko mu di ko mu di ko gàllankoor aboo jahlin kat xam nga ne jamono yooyu caméra amutoon télescope amutoon ba mu mën di ko jëfandikoo di xool yonante bi fu mu nekk ba mu mën koy gis déedéet ara ayta allazi yanha abdan isa salli kon baat yooyu noonu di ci taxaw lu am solo la tamit mooy tax tey boo dikkee ci ni yàlla meladee adduna bi ak ni mu ko bindee ak ni mu koy maam describe maanaam yooyu day mën a leer lool ci yow yaay bi yaa ngi dig kon mu ngi noonu sa nurihimu ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayyana lahum annahu alxaq suñ moom dalay won kaawtiifam yi ci gox yi ba ci sa bopp nga mën koo gis bu baax mën koo xam xam ne lii kawte fi yàlla la tey jii fi mu toll nii suñu borom ni mu bindee sa wey muy sax ak di dagg maanaam bu saxee bu demee ba nga xam ne gudd na nga dagg ko yaa ngi dégg te fi mu nekk kat boo ko tegg woon doo fa gis dara doo fa gisoo wex loolu jëfi yàlla la mu ngi jëf ci sa karaw gi suñ moom di ko sëqal te tey fa nekk fi ne boo ko xooloon doo fekk leen aw ay der rek nga fay fekk waaye tey saa bu waree génn dafay génn jëfi yàlla la yaa ngi dégg ni ki noonu tey jii suñ borom tey suñ borom ku yéeme la boo xoolee tey jëmmi doomu aadama rek karawam gii waxumal ay mbindeef yi ci nekk di ci dund waaye doomu aadama yi sax am na ñoo xam ci la ñuy dund am na koo xam dépassam ak la muy la muy yoree boppam ak njabootam yëpp ci sa karaw gi la koy jële nga xamante ni sa karaw gi suñ borom mu ngi koy sëqal ngay dem ci koo xamante ni moom moo la koy daggal defaral la ko yu yëpp bu ko defee nga mën a jël alal jox ko mooy mën cee dund dundal ci njabootam dundal ci léppam nga xam ne yow sa karaw gi rek maanaam maanaam mu ngi dundal ay ay ay nit yi nit yi ci kaw suuf fi mu toll nii kon yàlla ku yéeme la sa sa sa wey wii rek am na koo xam teraangaam ci sa wey yi la nekk te ci la ko yàlla dëxëñ def ko ci loo xool ci doomu aadama noonu ba ci sa biir bi am na koo xam teraangaam ci la ko suñu borom def bu suñu borom lee sa biir bi léegi nga dem euh, fi nga xamante ni moom mooy ca docteur yi seen ci la nekk kon loo xool ci doomu aadama rek da nga ko ci gis ci foofu noonu fi mu toll ni suñu borom di jëfee ci mbir yi nga xam yow sa jëmm ji rek maanaam xéewal gu bëri daf ciy jógee di jëmaat ci sa morom kon yàlla dafay jëf toujours nga di ko gis sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim ba ci seen jëmm ji ba ngeen xam nekk xataa yatabayyana lahum annahu alxaq ngeen xam ne mooy mooy dëgg ci niki noonu yonent yàlla bu day gis gisug bët ba tey dafaaw ñu leer ko maanaam suñ borom day wax ci alxuraan loo xam ne bu dee gis-gisu bët la dafay indi raa ah, yaa ngi dégg yonent yàlla Ibrahima ci alxuraan ba mu génnee gis li nga xamante ni moom mooy biddiw daane lii kat mooy sama borom ba biddiw wa demee weer wi dikk mu ne ah kon kat du biddiw yi daane man ka bëgg ma loo xam day ñëw dugg yooyu noonu daane weer wi mooy yàlla weer wi daal di dem mu ne ah man kat bu ma suñu borom gindiwut kat dinaa bokk ñi réer ñi ba ci jant bi na teet lit dikk mu ne ah kii kan mooy ki gën a mag kon kii nag mooy sama borom ba nga xamante ne jant bi na nag demaat na mu ne kat man seg naa nag ci li nga xam moom ngeen di bokkaaleeg yàlla te du yàlla wa kadalika nuri ibrahima malakuuta samawati wal ardi suñ moom neen dañ koo won wa kadalika nuri dañ koo won mu gis ak lan ay bëtam malakuuta samawati wal ardi nee na lu tax ma def ko wala yakuuna minal muuqinin ngir moom mu bokk ci ñi nga xam dañu am nee na falamma janna alayhi laylu raa kawkaban qaala hada rabbi falamma afala qaala uhibbu laafilin falamma raa alxamra baasiqan qaala hada rabbi falamma afala qaala in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi الضالين فلما رأى الشمس باسخة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون niki noonu xam nga nit yàlla yi ñoom saa bu ñuy dikk ci kaw suuf dañuy indaale ak njub goo xamante ne suñ boom daf leen koy jox moy njub go xamne dañ ko indalé ci kaw suuf mo tax suñu man xane xamne ibrahim kat wala qad atayna ibrahim rusdahu min qabl mom yalla mo defalon nako njub ba paré waye nak ngir mom xolam dal baru bokut ci ñi nga xam dañuy sik sakal ya ngi dig moo tax mu laaj suñu nak ma ari ni moy won ma ak samay bët du doon lo xamne damay jëfëndiko ay matériel yoy yëpp di xol ngir gis lool dedet won ma ak samay ba gis ko moo tax mu wax suñ man wan ma ni ngay dundalee koo xam dafa dee wa is qaala ibrahimu rabbi arini kayfa tuxyil mawtee qaala awalam tu'min qaala balee walakin li yatma inna xalbi qaala fa xuz arbaatan min altayri fasurhunna ilayka thumma jacal ala kulli jabalin minhunna jusan summa dcuhunna yaatiinaka sacyan waalam anna allah azizun xakim bi mu waxee suñu borom nag wan ma ma teg ci sama bët ci ni ngay dundalee koo xamante ni dafa faatu suñ borom ne ko ndax da ngaa gëmut mu ne ko ahan maanaam ahan kay gëm naa de waaye na dama bëgg rek sama xool daal di dal walakin li ma inn xal bi suñ borom na ko diggalal diggal ko ne ko jëlee ñeenti ñanaaw nga rey leen jaxas seen ndawal jëm ci ñeenti montagne montagne bi ñu ne nga teg ci maanaam maanaam maanaam benn kii benn ndawal maanaam seen yàpp yi nga jaxase ko teg fee bee teg fee bee su ko defee nag nga woo leen su ko defee boo leen woowee rek da ngay gis ku ci nekk day dem ca bam fam bokon yap bu ci nek rek fay dem ci picc mum jóge won ba nee ba lepp man nak mu ci teg bëtam boba kat jëfandikoo wut dara ngir gis ko dafa la ci teg yàlla da ko won mu teg ci bëtam motax suñu man waka kadalika nuri malaku malakuta samawati wal ardi wa isqaal Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta kon lo len kon yalla suñu borom bu wax ci alquran lo xamanteni da dafa jëm ci gis gisuk dafay wax maanaam baat ruya wala raa wala loo xamante ni lu jëm ci bët la bu dee nag loo xam ne dafa jëm ci lu ñuy jëfandikoo ngir mën a gis kaawte fi mu ne unzuru xool leen xul unzuru maa daa fi samaawaati wala ardi niki xam nga yonent yàlla Muusa tamit ay nitam dañ ko waxoon ne ko wala maa jaa Muusa li miiqaatinaa wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii anzuru gis nga foofu ñaari baat yooyu da ko indiwaat arinii anzuru ilayka xar قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين maanaam yonte yàlla Moussa dafa wax suñ borom ne ko won ma ma gis la ndax yonte yàlla Moussa dafa bëgg suñ borom lool sopp ko lool am ci moom bëggee lool tax nag mu namm suñ borom bëgg koo gis daana ko suñ borom na ko nag yow suñ borom rabbi arini anzur ilayka teg maa woon ma gis la ndax man kat dama laa bëgg lool suñ boo ne ko lan tareen yi maanaam mënoo maa gis waaye nag xoolal montagne yi dinaa ci feeñu sama leer su fekkee ne montagne yu sax na nekk fi mu nekk ba léegi su boobaa fi mu nii di ma mën a gis di nga mën a gis suñ borom feeñeel ci leeram luy toll ci daggitu we ci leer ci leeram rek luy toll daggitu we ci leeram rek ci montagne montagne yu daal di mokk doonu dëm doonu dóom yàlla musaa bi mu gisee loolu nag. wax xarra Muusa saaiqan mu daal daanu di lox ba mu ximbalikoo nag mu wax ne subhaanaka tubtu ilayka wa ana awwalu muminin gisee kawtif yàlla googu gis ko ci bëtam dafa daani lox daal di wax ne nag suñ borom man day maay kii njëkk a gëm ci sama nit subhaanaka tubtu ilayka wa ana awwalu muminin muy noonu kon ba tey yont yàlla Muusa gis nga bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo dikk dañoo dañoo ñaanam ahlul kitaab mooy nasaani yahudi dañoo dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko la tan lan moo tax suñu moom di wàccee alxuraan di ko def ay parti wàcce lii wàcce lee wàcce tañ te boo xoolee tawreet ak injiil ak yooyu noonu suñ boom bi mu koy wàcce def ko wàccandoo lépp matandoo moo doon bientee no lépp dafa wàccandoo te alxuraan ji di wàcc rek maanaam léeg-léeg mu wàcc lii wàcc lee wàcc lee bi nag suñ boom di ko wax ne moom bu la déranger wax jooju يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك لنكو لاجون فقالوا أرنا الله جهرة نكو يندو يكود لول بوك بوك بوم لا جاهال ndax yonent bi yonent yalla Musa kat waxon nañ ko lu gëna reuy lool ndax ñom lañ ko xon moy arina Allah jahrat won ñu yalla deug ñu gis ko ci suñuy bëtt mu yor peng ñu gis na yalla ngi ni xam nga loolu mo gëna reuy loolu moo tax suñu mën di wax ne wa is qultum yaa Muusaa lan nu'mina lak xattaa nara Allaha jahratan yow yonent yàlla Muusaa duñ la gëm mukk loodul ne danga ñoo woon yàlla ñu teg ci suñuy bët gis ko jahratan mu leer nañ waaw nga xam duñ jëfandikoo dara dañ koy gis ci suñuy bët jahratan mu leer nañ yaa ngi di kon lépp lu yàlla di wax mu jëfandikoo ci jëm ci baatu gis ci bët dafay gis dafay jëfandikoo baat boo xamante ni maanaam matériel amu ci yoon. yaa ngi dee alam tara anna al fulka tajri fi l baxri alam tara anna al fulka tajri fi l baxri bi nicmatillahi li yuriyakum min ayaatihi inna fi dalika la ayatin li kulli sabarin sakur nee na xanaa gisoo gaal gi nga xam ne dafay dox ci dafay daw ci kaw géej gi suñ borom téye ko ci kattanam te kat boo jëloon aw xeer sànni ko ci géej gi mu nuux dem ci biir waaye gaal gi nga xam boto bi nga xam ne ay kilo kilo lay peese muy daw ci ndox mi tafina non suxut suñ bam téye ko foofu ne li yuri yakum min ayati ngir won len ay fam foofu wa ni nga noonu ëllëg yowmal xiyaam suñ mo ne wax wa idara raayta thamma raayta naiman wa mulkan kabiran bu ngeen gisee xewul ga ak nguur ga suñ borom defal ëllëg yowmal xiyaam ñi dugg ca bi nga xam aljana ne wa mulkan kabiran ne na nguur gu mag la ba kat sey bëgg nga ci tek da koy gis mu leer nañ mel doon lo xam da ngay jëfëndiko dara ngir gis ko kon yii dama ko doon leeral rek ngir won ne yonente bi sallallahu alayhi bi muy wax ne suumu li ru'yat yi wa aftiru li ru'yat yi kon gis-gisu bët la ci jublu te sariya nanguwul sax saxal weer ak dàq weer te jëfandikoo materiel loolu sariya nanguwul kon hadis boobu rek leeral na ko suumu li ru'yat yi baatu ru'ya daa day doon nit ki boo ko waxee dara faaw da nga koy indil ay ay sukkandikuwaay yoo xam mooy tax mu xam ne li nga xam lu leer naññ la jataay bi loolu lañ ci bëggoon a leeral ay leeral la rek yoo xam dañ ko doon indi ci ay mbir mu doon ay fàttalante ñu koy def noonu kon foofu rek lañ koy yemale lu ci jub ci yàlla la bàyyi ko waaye lu ci dëngit ñun rek ñu ko corrigé ñu rek waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu